ngi lay nuyu Maliki Bousso nga bokk ci forum civil tey ji ñu doore waxtaan bi ak euh, coow li ñuy dégg ci euh, Dakar Dem Dikk ki fi nekkoon directeur général génn euh, doon weddi tuuma moom it yëkkati andi ay déballage mu mel ni million yaa ngay taw Dakar Dem Dikk tey société bi tey mën nañoo jàpp ne moo ngi suux tey nan ngeen jàngatee loolu yéen ñiy doon ay activiste di yëngu ci lépp lu jëm ci transparence loolu yëpp xam nga lu mu firnde rek Elisabeth mooy yorin yu ñaaw yorin wu ñaaw mooy li mauvaise gouvernance euh, loolu lay tubaab di wax xam nga booy saytoo euh, ci jamono Abdou Diouf Fonds monétaire international ak banque mondiale dañ ne woon Sénégal lu muy yàq ci xaalis ci koppar dafa jaaduwul pour defaraat fondamentaux économiques yi dañ ne woon nguur gi fi newoon na supprimer euh, chemin de fer mooy raay bi ak autorail mm-hmm. supprimer Sotrac mu indi jaaro yu rëy rëy ci Sénégal. Mhm. bi président Abdoulaye Wade ñëw toog mu ne moom xel xalaatul ne Sénégal di toog du am société de transport public bu def dafa Dakar dem dikk naam euh, mbir mooma euh, idée boobu idée bu rafet la mais niñ ko jëfee dafa indi moo jur lii yëpp parce que société la boo xamante ne. Mhm. kenn xamul statut juridique am la ay bor la yore. yoruwul benn patrimoine kuñ fa nomee ngay yaataa yëmbe di ci def lu la neex di dajale ay bor doo fay IPRES euh, xaalisu même coopérative d'habitat ba naxasaay nañ ko mbir ma daal ay jafe-jafe la sot euh, Dakar Dem Dikk bu dundee actuellement nguur gi ci téye bu amee jafe-jafe tam jafe ji ci nguur gi jóge mm-hmm. ni ñuy nomee ñi nga xamante ñooy jiite euh, nomination yi jaaduwul jaarul yoon yaa a neex wala da nga far ci man ma jox la jébbal mu mel na eh, alal boobu da nga koy def moomeen di ci def lu la neex. Mhm. moo jur lii li mu li muy yekk kii eh, eh, xëy na moom it noonu la taxawee ñi ko jiitu woon tamit noonu la ñuy taxawee te ba léegi indi ci ay saafara te président bi bi mu fi bi muy toog en 2012 dafa ne woon li dafa war jeex ci réew mi ñu ngi toll aujourd'hui en 2021 dafa yokk mm-hmm. yorin wu ñaaw yi ba léegi mu ngi fi yàq alalu réew mi ba léegi mu ngi fi tegle ay bor yoo xamante ne ci ndoddu sénégalais yi ak askan wi la ne mu ngi fi ba léegi dafa jot nag dafa jot ñi nga xamante ne ñoom lañu ñu réew mi mm-hmm. jaay ñu leen ko may ñu leen ko ñu yore réew mi yorin wu sell bu mucc ayib seen citoyen moo ñoo ci war a taxaw man bu ma la dénkee ab mbir nga yore ko nit du noonu damay wut ay loxo yu gën a wóor wala ma wo ma ko yore man ànduma ci au moins nga changé ni ngay doxee. Mm-hmm. gis nañu euh, société civile gi taxaw gim taxaw jëm ci wàllum gouvernance tey jii ndax euh, mën nañoo xaarandi ay action yi nga xam ne dinañu gën a laajte ngir mbir mi leer ci Dakar Dem Dikk de la part surtout euh, du Forum Civil. du Dakar Dem Dikk rek li ñu bëgg a leeral bëri na Dakar dem dikk dinañu leeral mbiram yeneen yeneen ak yeneen secteur dañu war a leeral mbiram parce que citoyens yi ñoo am droit. Mhm. am information bu sell. ñu xam ci lan la ñu ne parce que alal bi seen alal la société yi ñoom lañu ñuy ñi ñu fal ñoom lañu ñu war a liggéeyal. Mhm. jël mille milliards def ko ci affaire euh, euh, mbas mi fekk kenn du leen laaj xaalis ba fan la jaar. Mhm. mais duñu bàyyi dara. lépp loo xamante ne dafa war a laaj investigation pour leeral dinañ ci xar suñu tànk tubéy pour mu leer loolu moom Elisabeth gëmal ne forum civil dina ci def bi waaram ni mu waree. Mhm. tey jii euh, ngir mu dakk fi définitivement lan ngeen di préconiser comme solution. xam nga lu ko indi. lu indi lii yëpp mooy que du amuñu ay loi yu koy sanctionné de mais ñi war a sanctionné ñoo dul sanctionné. mbir mi moo dul egg fu ñu ko war a àtte ñi ko war a traité au plan judiciaire muy procureur de la république moo dul def parfois liggéey bi ci war parce que il est euh, euh, maître de l'opportunité de poursuite dafa laaj nag léegi président la république bu joxee ay rapport mhm. amul sañ-sañ naan citoyens yi dafa am ay citoyens de première zone ak seconde zone dafa war a jébbal ñi war a àtte àtte ku def ñu dóor la daan ku deful ñu bàyyi la nga dem ci sa kiyaar bopp tant que jug defuñu loolu nguur dina fi ñëw nguur jóge fi lafa fa newoon mooy moo fi neyal mhm. dafa jot nag ñun ñu ñu jóge rek ci dénonciation bi foog ñu am sañ-sañ sax di jaamaarloo ñoom ci biir tribunaux yi di porter plainte contre ñi nga xamante ñoom la ñuy dénk suñu alal moom la ñuy dénk suñu ay gox ñoom la ñuy dénk suñ suñu réew dafa jot citoyen bi mun a jaamaarloo ak ku ne nga xamante ne da nga jalgati Eh, mission bi ñu la joxoon. wax ci leneen mu euh, concerné forum civil directement ca diwaanu euh, Kolda foofu nag gisoon nañu euh, ay organisation société civile forum civil bokk na ci sax ak FRAPP bu Kolda ñoom ñu amoon benn coow bi nga xam ne yëkkati woon nañ ko ba coow la mujjee àgg fu mbaxane doone benn fan la seeni ñooñ yooyu mujj. jërëjëf li xew Kolda moom ñaari pàcc la. Mhm. benn bi mu ngi concerné foncier bi. da nga xam ne dafa am benn village boo xamante ne de reclassement dañ ko jagle woon ñi nga xamante ne dañu amoon euh, feebaru gaana bi te wér mm-hmm. euh, nga xamante ne euh, de ndimbal dafa war a jóge ci état ak ci communauté yi mm-hmm. collectivité territoriale dem ci ñoom ñu naka leen benn bërëb pour ñu war fa taxaw taxawal seen ay dëkkuwaay maanaam ay sambabo yi nga xamante ne ñoom xeetu ñaawteef rek lañ fi nekkee bu suuf amee rek ñu ñëw indi seen paaka dagg lu leen lu leen neex ñi nga xaman ñi ko moomoon du ñu desee dara xeex boobu nag la société civile jël am na ci ay intimidation dugal nañ fu ne mais am na ci ñoo xamante ne xëy na dañoo waroon nekk fii nekkal askan wa euh, euh, di ci def lu dul noonu indi fa jeexi jaaxa euh, mais ñu ngi ci l'enquête pour xam ñan la ñoo xamante ne war waruñ ci woon bokk te ñu ci bokk. Mm-hmm. ñan la ñu mbubboo ñan ñoo nekk seen ginnaaw loolu suñu société de forum civil mu ngi koy jéem a leeral beneen bi mooy mbir mbirumu euh, euh, bant yeeg a garab yi. Mhm, ñu xool ne li ñuy dagg ci garab ak gàncax dafa bëri trop ci biir Kolda ak ci région de Kolda. Mhm. forum civil nag defoon en place li ñuy tudd observatoire des territoires yoo nga xamante ne euh, ci ay communauté rurale yu commune rurale yu bëri ak collectivité territoriale dañ fa samp ay kuréel yoo xamante ne waa dëkk ba askan wi ñoom ñooy taxaw di surveiller àll bi di xool li ci xaw mm-hmm. loolu nag nañ gis ne am na ay gars yoo xamante ñu ngi def ay xeetu ñaawteef ñu interpeller euh, eaux et forêt pour mu def liggéeyam eaux et forêt ne dañ leen dóor dañ leen teg ay tuuma seen kaw porté ñu plainte suñ coordonnateur dem répondre jox ay firnde gendarmerie dem jàpp na ay ay ay ay billon de de de ay xeetu garab yu bëri yoo mm-hmm. xamante ne Euh, saay-saay yooyu ñoo ko ñoo ko doon ñoo ko doon ñoo ko doon daaneel di wut niñ ko jaayee. Mhm. loolu dafa wóor ne rek dañuy bëgg a intimider société civile. kon yow jàpp nga ne xoqatal la. waaw xoqatal forum civil nag euh, yooyu moom mënoo ko xoqatal parce que li muy def citoyens yi moo ko tax a te citoyens fu ñu jóg ñu ñu waaw citoyens fu ñu jóg ñu ak ñoom te tamit jumtukaay yu ñu yore dinañ ko yóbbu ci citoyens yi ñu mun ko jëfandikoo pour seen àq ak seen yelleef. parce que loolu ñoom ñoo ko war mun a xeexal seen bopp keneen mënul xeex à leur place mais bu ñu jógee nag taxaw ku war a ànd ak ñoom forum civil daal lu ci dellu ginnaaw moom Mm-hmm. yéen ngeen di wàllum citoyen euh, citoyen yooyu sax ngay wax tey yow citoyen sénégalais nga ngeen déggoon ñu wax élection euh, départementale ak municipale atum 2021 mois de mars sax bokkoon ci weer yi nga xam ne ñu ngi ko doon laam-laamee li am tey jii ci audit fichier yi xam xam nañ ne du mën a nekk ba tax na donc report euh, tey lan nga ci xalaat Elisabeth li xew nii suñu réew rek la mën a xew président de la république jàkkaarloo ak askanam naan ko tant que ñun politicien d' accord uñ xaw a kañ lay élection kan moo ko mën a nangul loolu daf ci amul benn droit moom du la muy wax noonu amul ci droit élection yi citoyen ñoo ko moom bu ñu toog vingt mois après la fin des mandats des des des des des de des des des conseils municipaux et des conseils départementaux seen mandat jeex na ëpp ñaar fukki weer askan waa ngi leen di fay fekk waruñu fee ne ci anam yi ñu fi nee mm-hmm. mais jot na nag ñu dem jàkkaarloog askan wi ñu ñu war a falaat ñu falaat leen ñu ñu war a beddi ñu beddi leen indi ñeneen loolu sañ-sañu askan wi la responsabilité askan wi la président la république amu ci yiy yàbbi lu dul convoqué collège électoral bi lu ñu xaar ci moom mooy que reen gi duñ ci génn fekk loolu defuñu ko parce que dañoo wàccee ci charte réew mi àqu nit àqu nit ñi àqu askan wi président la république ak acteurs politiques yi dañ ko dañ dañ yore te dañuy war a wàccoog askan wi ci loolu mm-hmm. wax ci leneen muy vaccin yi euh, coow lii nee na cours spécialiste yi sax euh, seen wax moo gën a tey xel ñi jàpp xëcc fii ñi jàpp xëcc fee lu ci sa xalaat ah man de duma spécialiste santé ni vaccin dama xam ne rek ci li ma jàngat bu ndaw mm-hmm. vaccin euh, titre de prévention la te mbas mi liñ ci jàngat mooy amaguñu li koy li koy li koy saafara. Mm-hmm. ci vaccin bi la xalaat. li ci des nag mooy vaccin bi na indi sécurité vaccin bi nañ ci jot ci anam yu rafet anam anam yu jekk. Mm-hmm. Eh, te buñ ci beddi kenn mooy inclusion et surtout niñ koy jëndee ak niñ koy amee. Mm-hmm. na na charte yi nga xamante ne charte yi yi lal commande publique. waaw loolu nag forum civil moom loolu moom dina ko saytu. Mhm. li ci des affaire santé yi nag ak affaire yeneen yi. ñu mhm. bàyyi ko spécialiste. spécialiste mais affaire gouvernance nag moom ressources yi nga xamante ne moom la ñuy jagleel vaccin bi ak campagne nationale vaccin bi. Mhm. nguur gi xam ne ñun suñu bët ñu ngi ci teg. tey jii FMI gannaaw benn jàngat jàpp na ni Sénégal donte mbas fii lëmbee croissance économique comme mën nañoo jàpp ne yemamaay na maanaam positive na ci atu 2020 gis nañu suñu dëkk euh, jamono jii soulèvement euh, donc bi am ci li nga xam ne mooy euh, syndicat yi ak yeneen secteur maanaam foo laal nee nañu moo ngi metti tey ndax lii FMI jox comme appréciation méngoo nag li xew ci mim réew. ah loolu mun nga ko tontu sa doo ak do xam naa ne <laughs> comme man doo spécialiste économie mais boo làmbee sa portefeuille boo demee marché di jënd boo delloo sa kër xam nga ne yey situation économique bu Sénégal fi mu nekk ci jafe yu ne yu metti yu tar tar la ñu ne te loolu lu koy wone mooy que ñun ñi nga xamante yow comme man xëy na am na lu ñu yàlla baaxee ci xëy am na loo xamante am nañ ko tuuti as koom mais Eh, eh, pour pour couvrir suñu weer ay jafe-jafe yu rëy la ñu am à plus forte ku amul li ñu am woon na ne rek citoyens yi perception bi ñu am ci économie bi ak li Fonds monétaire international di wax yàlla ak yàlli la li am solo am solo nag mooy que bi ñu wax ne combien ngi dox fekk citoyen baa ngi koy yëg fekk borom kër gi ak ak waa kër gi ñu ngi yëg yokkutu bi ñuy wax mais ñun de suñu ko man mm-hmm. de sentiruma ko xaw ma yow nag. d'accord merci beaucoup Maliki Bousso. merci beaucoup Elisabeth. nga bokk Forum Civil ñu lay jaajëfal bu baax a baax.